c'est-à-dire li ñu li ñu ñi di def consentir ci ay effort pour participer ci élection yi danga jàpp ne moo gën a bëri que li ñuy consentir effort ci Macky Sall bañ a bokk même su ma la ko d'accord loo nag parce que mun nañ ci waxtaan parce que après événement mars 2021 juste xeex yi ñu njëkk a waat am na ci boo xam ne HLM Grand Yoff fii la amee woon opposition bi def une mobilisation historique mbirum troisième mandat la woon tey Aminata Touré li gën a symboliser xeexam troisième mandat te ci opposition la bokk kon loolu mun nañ ko relativiser mais su ma la ko nangulee woon su ma la ko nanguloon sax c'est très pertinant xam nga tax pour deux raisons première raison bi mooy actuellement troisième mandat président bi waxul ne dina ko def même su dee posé na acte yi ñu gëm ne da koy def alors que ñi ñu jug pour xàññeen ñu bokk posé nañ acte pour xàññeen ñu bokk muy benn deuxième raison mooy li sénégalais yi defoon 2012 ñun ñaanuñ ñoom ñu def ko mais ñu ëpp ci sénégalais yi laay wax man mun man sax partagé wu mu opinion boobu dañu jàpp ne après tout nit même bu utee troisième mandat jaarul yoon su fekkee ñun am nañ capacité pour soppi ko ci une yi mën nañ ko def par exemple damay joxe exemple list yeew yi bu ñu ko rejeté ci ci ci élection législative yeew yi askan wi nit ñi xeex nañ am na sax ay mort mais après tout nit ñi dem nañ élection élection yi permettre na cohabitation am n'est-ce pas maanaam permettre na au moins pouvoir bi perte majorité. du dëgg donc les sa se battent. déglu déglu non déglu ma expliquer la dama la bëgg wax ne la peut-être loolu moo imp moo nekk ci conscience yi ci ñenn ci sénégalais te man jàpp ma ne sax méthode boobu moo gën parce que parce que loolu. élection législative de élection présidentielle de. méthode boobu gënul ban méthode moo gën. man li ma gëm. Hmm. li ma gëm mooy Macky Sall bu ñu ko bàyyee mu ne damay ut troisième mandat. ñu bàyyi ko mu dem déposer conseil constitutionnel conseil constitutionnel valider ko troisième mandat am troisième candidature am mu dem élection campagne war réew mi même su dee dañu ko gagné laa la wax beneen président bu ñëw boo ut boo utee deux mandats parce que constitution bi ñu ci bind leer na mënoo bind lu ko gën a leer ñeme ni utaat troisième mandat parce que day naan am na jurisprudence su ñaari président yu fi jaar. léegi à chaque fois dañu leen di bàyyi ñu dem. ban combat moo gën. bu mu ko def. bu mu eh, nan ngeen koy. empêcher mu ko def xeex donc yow booy booy booy xam nga. c'est pas moi de théoriser dire aux Sénégalais man yabuma Sénégalais yab bu doy ni Sénégalais yi ak fu ñu jaar comme li nga wax man ma leen nii ngeen koy defee nii ngeen koy defee. un acteur politique tu poses des combats de principe. le peuple te suit ngeen ànd ensemble ngeen.